finalement dafay dem defi sa déclaration de politique générale bi ko wax ne na ko dem defi na dinañ ci dinañ ci wax. ci biir wax euh, mois alors 3 mois parce que le règlement intérieur de l' assemblée nationale boo ko jàngatee ci la ñuy wax ne le premier ministre dafa war a ñëw jàkkaarloog assemblée mois yi les 100 premiers jours après son élection. Oui. mais yooyu ñi nga xam ne ñoom ñoo koy défendre tey je me dis quelque part ils sont mal placés pour défendre lool lan moo moo tax Moustapha Niass biñ ko falee en 2000 mille euh, premier ministre le 3 avril mu def sa déclaration de politique générale vers le euh, le 10 je pas juillet mm -hmm. a fait 14 semaines à la primature avant muy def sa déclaration de politique générale donc mm -hmm. dépassé na ko deux semaines avant mu koy def Idrissa Seck nga xam ne man jàpp naa ne sa déclaration de politique générale bokk na ci yi gën a marqué l'Assemblée nationale en tout cas ces dernières années man mi ngi ko def dans les cent jours cest dire que moom ñu ngi ko fal premier ministre le 4 novembre 2002 le 3 février 2003 Idriss Seck def sa déclaration de politique générale. Mm. mais les trois mois constitution wu Sénégal waxu ko dafa wax ne le premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale ñu ne boo demee ci le règlement intérieur de l'Assemblée nationale moom mooy wax ne il va le faire au bout de dans les trois mois qui suivent euh, nu ñu ko waxee sax sa sa nomination. dinaa ci ñëwaat léegi. Hmm. mais li waral li. Hmm. trois mois trois mois trois mois. mooy dafa am ñoo xam dama jàpp ne ñoom dañoo gëm ne euh, ni ñu koy waxee sax pour ñu exister waat politiquement. Mm-hmm. pour ñu am en tout cas quelque chose qui leur permet d'avoir un débat avec le gouvernement. Mm-hmm. moment bii la mooy moment de déclaration de politique générale. parce que en réalité booy xool l'actualité au Sénégal. Mm-hmm. la presse moom moo gën a critique avec le régime que les opposants eux les opposants amuñu amuñu lu ñu wax. le chef de l'opposition c'est Amadou Ba. sa dernière lettre qu'est-ce qu'il nouvelle responsabilité il appelle euh, dialogue démocratie nangam ak nangam ñi nga xam ne ñoom ñoo fi gën a tijji seen làmmiñ di wax tudde seen bopp ay opposants mais ils n'ont jamais été à des élections je désolé quand tu n'es pas capable de dépasser l'étape des parrainages man mënuma la jël comme un leader politique d'envergure boo xam ne soo waxee tu fais l'actualité je suis désolé de le dire je suis désolé de le dire comme ça mhm. euh, ñi am sax dem nañ élection am loolu mhm. même bu dee 10 Sénégalais moo leen voté mais yaana yoo xam ne man ak ñoom ak Cheikh Tidiane ñoo am statut mhm. parce que ils ne sont jamais ils n'ont jamais été confrontés au suffrage universel parrainage leen amuñu ko il y a combien qui ont qui sont allés chercher amuñu ko ñu toog. mais ñooñu ñoo ñoo bëgg a nekk tey les chefs de l'opposition di tànqal Sénégalais yi. ci loo xam ne j'ai l'impression que ñenn ñi dañu yaakaar ne les Sénégalais am amnésiques. Mhm. amnésique mooy euh, li xewoon li ñu reere démb xamuñu ko mais attends ce qui s'est passé avec euh, euh, législature bii ñu nekk mhm. ak le régime de Macky Sall mhm. mais je dis souvent que ça ne date pas du siècle dernier c'était en 2023 bii ñu génn ba 2024 lu nekk def nañ ko l'Assemblée nationale la majorité Benno bi nga xam ne tey mooy wax ne ne Ousmane Sonko ñëw jàkkaarloo ak Assemblée nationale mais majorité Benno ils on pendant ñaata lañ defagum ma dem ba pendant des années et des années amul weer wu ñu violé wul la constitution du Sénégal. Mm -hmm. c'est les premiers depuis Mamadou Dia qui ont pris la gendarmerie dem dugal ko ci biir Assemblée nationale pour mu euh, téye ay députés. Mm -hmm. ces ñoo fi indi lu musul am assemblée. ñoom ñoo taxaw tey ne oui il faut ñu respecter la constitution il faut ñu respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale on parlera du règlement intérieur mais j'ai l'impression que ñoom ils nous prennent pour des hommes politiques que c'est des yoo xam ne pour ñoom il fàtte nañ li xewoon il quelques années mm-hmm. enfin il y quelques semaines parce que bi fi Bassirou Diomaye Faye faloog léegi matagul ñetti weer mais euh, dañ ne bi ñu supprimer woon li nga xamante Euh, une lecture des faits historiques mm-hmm. il faut nga xam lan la ñuy comparer mënoo comparer déclaration de politique générale bu Ousmane Sonko ak bu Idrissa Seck par exemple mm-hmm. wala bu Macky Sall wala bu Amadou Ba mm-hmm. pourquoi parce que ñooñu bi ñuy nal nommé premier ministre dañ leen a premier ministre ci benn régime boo xam ne ki ko incarné muy Macky muy Ablaye Wade ma nga fa woon politique bi moom moo ko définir ñoom dañoo dem assemblée pour liiral ko politique am c'est différent bi Moustapha Niass di def sa déclaration de politique générale dafa fekk président Wade falu après 40 ans de règne du PS kooku nga mën a comparer ak li nga xam ne moo nar a xew ak Ousmane Sonko. Mhm. wala nga jël Abdoul Mbaye. Mhm. Abdoul Mbaye pour euh, la petite histoire. Mhm. mais Abdoul Mbaye premier ministre waa Bennoo la woon. waa Bennoo ñoom ñooy wax jamono jii ne il faut que Ousmane Sonko le fasse dans les trois mois mais Abdoul Mbaye xam nga ñaata la toog avant mu koy def. Hmm. le 3 avril. 3 avril la ko Macky Sall nooy premier ministre mu def sa déclaration de politique générale le 10 septembre 2012 c'est-à-dire Abdoul Mbaye toog na avril. 5 mois 5 mois. mois avant mu koy def. Mm. donc ce sont ces gens-là tey ñooñu bëgg a ñoo bëgg a imposer Sénégalais que ni il faut mu def ko dans les trois mois alors que en réalité bi Macky Sall nekkee président de la République du Sénégal dafa fekk une majorité. Mhm. Macky Sall li mu bëggoon mooy négocier ak la majorité de comment ça s'appelle. de de du soppi d'Abdoulaye Wade pour que ñu dàq élection législative yi. Mhm. négociation ba sottiwul parce que boobu Abdoulaye Wade mere na Macky Sall mere goo xam ne bëggu woon a gis sax même en en Macky Sall tas assemblée nationale. il a fallu ñu attendre juillet pour élire benn assemblée assemblée bi juillet lañ ko élire ba septembre Abdoul Mbaye doog def sa déclaration de politique générale. Mhm. donc encore une fois ñiy wax ils sont mal placés pour dire ça. Mhm. beneen bi mooy soo xoolee la constitution du Sénégal wax naa la ne moo wax ne le président de la le après sa nomination le premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l' assemblée nationale. Mhm. ko sax joxewul délai dara mais. ñu ne délai bi mi ngi ci règlement intérieur bu la bu assemblée nationale bu Sénégal. Mm-hmm. or dama dégg ku mel ni Guy Marius Sagna wax ko. Mm-hmm. et là mooy piège bi Benno daaneel boppam. parce que quand les députés de Yewwi Askan Wi taxaw fii ci assemblée boobu Macky Sall mooy président wu Sénégal. Mm-hmm. ñu ne réglement intérieur bu assemblée nationale bii ñu yore faux la règlement bu ñu falsifié la. nañu ko pour pourquoi ñu ko doon wax. parce Euh, la loi numéro 2019 10 de euh, de, de 2019 dafa supprimer poste premier ministre Macky Sall moo ko voté ñu ne premier ministre amatul ci Sénégal bi ñu ko defee qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait Assemblée nationale dafa daje mu changé règlement intérieur am lépp lu fa nekkoon disposition jëm ci premier ministre ñu dindi ko. Mhm. ci lañ dindee déclaration de politique générale. Euh, ci lañ dindee nu ñu koy waxee sax la motion de censure ci lañ dindee euh, nu ñu koy waxee euh, toutes les dispositions ak déclaration générale vote de confiance ak motion de censure ci lañ ko dindee maintenant ñu toog ba mu neex leen ab Macky Sall ñëwaat ne day delloosiwaat euh, le poste de premier ministre en avril au mois de décembre 2021 bi ñu ko voté ba pare qu'est-ce qui s'est passé dañu restaurer le de premier ministre dans la constitution du Sénégal mm-hmm. mais l'Assemblée nationale modifié wul son règlement intérieur mm-hmm. lool la waa yeewi askan wi wax te waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi def conférence de presse tey defe naa j'espère qu'ils vont éclairer les Sénégalais sur ça mais ce qui est mooy pendant cinq ans pendant cinq ans ñi ngi doon fonctionner ci benn règlement intérieur boo xam ne ñu bari dañoo jàpp ne dañ ko falsifier mhm. parce que supprimer nañ le poste de premier ministre ñu dindi disposition yi ci règlement intérieur bi poste premier ministre dellusiwaat waa benn Bokk Yaakaar changé wuñu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour indiwaat ci les dispositions yi concerne le premier ministre moo tax. le 17 septembre 2022 ñu nommé euh, euh, nu ñu koy waxee Amadou Ba premier ministre. Amadou Ba war a ñëw le 12 vingt 2022 def sa déclaration de politique générale. ci la ko Guy Marius Sagna ak waa Yewwi Askan Wi bindee benn lettre moo tax je dis quelque part que ni man dama jàpp ne waa Benno astafurlah waa Yewwi Askan Wi ak Guy Marius Sagna ils sont dans leur logique mm-hmm. contrairement à ce dans la presse parce que bind nañ le premier ministre Amadou Ba ne ko mënul ñëw assemblée nationale pour def sa déclaration de politique générale mm-hmm. lan moo tax parce que dañu ne ko yow disposition yi la concerné amatul ci règlement intérieur bu assemblée nationale mm-hmm. c'est la même chose que Guy Marius Sagna a redit à Ousmane Sonko hier parce que dafa ne ko mënoo ñëw assemblée nationale def déclaration de politique générale pourquoi parce que disposition yi la concerne yow premier ministre nekkatul ci réglement intérieur. Mm. donc qu'est-ce que le waa Bennoo lan lañ def bi yeewee askan waxee loolu. Mm-hmm. dañ ne. Mm-hmm. yi règlement intérieur bi nekk na ci ci lañ indee réglement intérieur boo xam ne cinq ans avant la amoon les dispositions concernant. le premier ministre. moo tax ñoom Abbas Fall Guy Marius Sagna ne c'est un faux règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur la base de la duquel Amadou Ba a fait sa déclaration de politique générale am na ñu ne pourquoi alors waa Benno Asafala ah, waa Askan Wi def motion de censure contre Amadou Ba sur la base d'un faux règlement intérieur mais Salma quand tu me dis yow tu es le directeur de Walfadjri je te signe un contrat sur la base d'un faux mais soo may attaqué tu ma sur la base de ce faux en réalité ça n'existe pas. En, en réalité ça n'existe pas. Mm -hmm. C'est ça le problème qu'il y a à l'Assemblée nationale moo tax ma yaakaar ne pour régler le problème une bonne fois pour toutes mm-hmm. il faut ñu jël le temps qu'il faut pour waa Bennoo ak waa Yewwi Askan Wi su fekkee ne dañoo bëgg. que la déclaration de politique générale se fasse ci législature bi il faut que waa Benno ak waa Yewwi Askan Wi s'entendent sur une chose mooy lan mooy règlement intérieur bu assemblée nationale su fekkee ne bi ñu doon fonctionner depuis c'est un faux ñu dem convoquer les députés pour defaraat seen règlement intérieur bu ñu amee règlement intérieur bu indiwaat les dispositions euh, de la déclaration euh, concernant le premier ministre le premier ministre dem def sa déclaration de politique générale ensuite mu jeex tàkk mais suñ ko deful on continuer jusqu'à ce que une nouvelle législature installé wu mooy ñu dem élection député parce que mm-hmm. jàpp naa ne assemblée bi moom mm-hmm. fan wuñ ci yokk te dissoudre ko tooñ sénégalais yi la. Mhm. après bon ñu ñu def ça de la déclaration. oui bi ngay wax yaa ngi naan am na ay euh, ponk yoo xamante ni dañ ko dindi ci réglement intérieur yi bokkoon ci déclaration de politique générale. mais wax mhm. nga aussi ci motion de censure et nekk na loo xamante ni ñu ngi naan que Ousmane Sonko loolu la ragal jamono ji su fekkee ça n'existe pas ci règlement bi de quoi. quoi euh, euh, man su ma dégg ñuy wax naan. Ousmane Sonko dafa ragal nangam. vraiment je ne suis pas dans la tête de Sonko. mais su fekkee Ousmane Sonko dafa ragal euh, dem. assemblée mais ça veut dire que Ousmane Sonko euh, diggante bi ñu ko falee premier ministre léegi yàlla da koo soppi quoi c'est-à-dire que def ko beneen. parce que le Sonko qui a mené son combat avec contre le régime de Macky Sall ak gendarmerie am ak euh, police am ak léppam ba daaneel ce régime là. le même Sonko qui était seul. à l'Assemblée nationale contre les cent vingt ou cent cent xaw ma su bëggee wax sax bu ko bëggee noppaloo ñu koy noppaloo par force sama Ousmane Sonko tey incarne une partie de l'exécutif chef du gouvernement ragal. Mm. mais ça veut dire que Ousmane Sonko a dañu luxus beneen Sonko. dañu indi beneen. Mm. wala boog ñu indi benn gaynde simbi quoi comme di <laughs> euh, moo mon ami Mouhamed de <laughs> ancien de la RTS mm. nee na finalement les yi wax ni yëpp c'est des gaynde simbakat parce que en réalité assemblée bii lan ngay ragal ci dem parce que bu fekkee ne li xewoon 2000 te ragal naa ne bu ñu deful ndànk déclaration de politique générale bu euh, Moustapha Niass bu ñu deful ndànk même tempo bi la déclaration de politique générale bu Ousmane Sonko di am mooy lan. Mmh. mooy il va faire le bilan des 12 ans de règne de Macky Sall. et le bilan des 12 ans de règne de Macky Sall si Ousmane Sonko le fait à l'Assemblée ñu bari nañ noppi. Mmh. ah oui ñu bëri dinañ noppi parce que ils ne seront pas à l'aise mmh. quand Moustapha Niasse a fait sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale mais je me rappelle ma dem ba certainement yaa ngi fa woon bi mu génne yàlla ko yàlla yërëm dañ ko laaj mu ne Moustapha Niasse a été trop dur avec les socialistes mmh. autant Moustapha Niasse être dur avec les socialistes moom mi nga xam ne il était au cœur du régime socialiste mais Ousmane Sonko qui n'a jamais été avec le régime de Macky Sall et qui détient toutes les informations yu mu soxla ci la ci le règne de ces la mhm. mais c'est facile pour lui d'aller exposer ça à l'Assemblée. te bu exposer ñu bari nañ noppi. beneen bi mooy. Mhm. que mu dem fa mu ñàkk faa dem waa Benno bu leen neexee déposer une motion de censure mhm. contre mm -hmm. son son gouvernement. tey boo déposer une motion de censure contre son gouvernement mu daanu tey. à la minute qui suit ça sert à quoi donc il pas avoir peur de quoi que ce soit. je ne pense pas très parce sincèrement. que parce que je pense que mës nañ def chronique ngay wax que même bu ñu defee motion de censure dañ ko wax que euh, tabaatal premier ministre mais waxuñu la tabaatal beneen premier non, ministre. Non, non, donc motion de censure à bu ñu defee motion de censure parce que là et d'ailleurs nañ ci def ndànk aussi. Mhm. parce que ñi wax naan wéy dafa ragal motion de censure dañoo jàpp ne Benno am na majorité bu ko mën a may su defee motion de censure mu daaneel le mooy assemblée nationale bi biñ koy installé bu ngeen fàttalikoo. Mhm. il a fallu que Pape Diop accepté bokk dans le. Benno pour que ñu mën a am majorité. Mhm. parce que Aminata Touré dafa bàyyeeku woon. Mhm. dafa après lañ trouvé seen affaire bi dàq Aminata Touré. beneen bi mooy euh, donc man jàpp naa ne majorité Benno boobu dëgërul. beneen bi mooy bi Macky sàll daanoo ba léegi. Hmm. waaw kan moo leen wax ne waa bennoo benn lañ. ba léegi benn lañ ba tamit de <laughs> est-ce que ña ngay wax ne waa bennoo benn lañ ba léegi ci seen groupe parlementaire bii. Hmm, hmm, du plus que Amadou Ba ci boppam def na une déclaration pour woote ay nouvelle responsabilité ñu bari ci waa APR wax nañ am ci waa APR ñu wax ne nañ ko dàq seen parti am na ñu ne moom ci boppam. il a signé l'acte de divorce avec sa déclaration mm. mais il faut vraiment sous-estimer Amadou Ba pour yaakaar li waa li bu Macky Sall bëgg duñ ci ànd ak moom nga dool may ma rek nga dool ci nag waa Benno nga xam ne socialiste yaa ngi ci biir mm. waa AFP ñu ngi ci biir ak ñeneen ñeneen tu sais tu penses que ces gens ñoom dañuy continuer rek nekk ay moutons waa wàllu ah naka la taxawee exactement parce que gis nañ ne coalition Diomaye lañ leen demee woon. ci présidentielle yi. on sait pas waaw wala lan mooy nekk seen taxawaay lan mooy nekk taxawaay waa taxawu Dakar. mais tout ça c' est des questions xam ne mm-hmm. on est de rien comme on comme on dit. c' était ça c' était fait. c' euh, en fait de Benno Benno mais euh, ce qui feront la différence peut à l' nationale mooy waa wàllu ak waa. taxawu. parce que ba léegi kenn xamul lan mooy taxawaayu wàllu lan mooy taxawaayu Benno dans ce waxuma dans le débat sur la déclaration de politique générale c'est différent mm, mm. parce que tey lan mooy nekk seen taxawaay su fekkee dañu indi une motion de censure contre le gouvernement de Ousmane Sonko mm. lan mooy nekk taxawaay waa Wallu lan mooy nekk taxawaay waa Benno mm-hmm. man xaw ma ko mm-hmm. xaw ma ko mais dama jàpp ne dans tout ça pour conclure celui qui doit être vraiment heureux mm-hmm. dans cette affaire là c'est Bassirou Diomaye Faye comment ça pourquoi parce que Mademba depuis toujours suñu président wu Sénégal yi benn problème lañ amoon on avait des présidents trop exposés. premier ministre benn morceau bu ñuy fobeeree la rek da nga ci euh, fomp sa tànk dugg benn paillasson la bu ñu teg ci bunt bi rek da ngay gars yi bu ñuy wax président la ñuy wax depuis toujours et on a toujours dit que le premier ministre doit servir de fusible au président de la république mais jamais jamais mm. en tout cas de 2000 à maintenant peut-être Idrissa Seck peut-être Idrissa Seck bi mu nekkee premier ministre Wade il subissait plus d'attaques mm-hmm. que Wade mm-hmm. de Wade mais muy Moustapha Niass Abdoul Mbaye euh, Souleymane Dédé euh, Cheikh Hadjibou Soumaré les premiers de Macky Sall yi fi jaar yëpp mosu ñu intéressé kenn li intéressé woon nit ñi mooy Macky Sall lui tey au Sénégal yàlla def na on a un président boo xam ne moom moo am pouvoir di décider ci lu ko neex mais président boobu personne ne l'attaque mm-hmm.